asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci ndigalul sëriñ tubaa cheikh mahamadul muntaxa yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér sëriñ siidi jenn moom sëriñ naar jenn mooy del siwaat di seereel àdduna bépp ak cantam ci sëriñ tubaa cheikh mahamadul muntaxa di fàttaliwaat yaakaaram sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul di sant mbooleem njabootug sëriñ Isaa Jenn gépp rawatina njabootug sëriñ Baara Jenn waaye rawatina nag njabootug sëriñ Naar Jenn bokk yi sëriñ Sidi Jenn moom sëriñ Naar nee na ginnaaw bu mu santee ba noppi mu ngi del siwaat di seereel mbooleem taalib bi yëpp ak bokk yëpp liggéey bi nga xam ne sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadul Muntaxaa mi ngi ko koy liggéeyloo ca tool ya nekk ci Thiel di tooli isnul abraar di daaray Cheikh Mahamadul Basir joo xam ne dafay liggéeyal Serigne Touba Xaadimu Rasul tool boobee mu tudde ko toolub Serigne Touba liggéey boobu nag Cheikh Mahamadul Muntaxa di def saa yu noppee mu jox ndigal sii di moom sëñ naar mu dem fa bàcc gerte ga jëri ko roñ ngooñ ma roñ gerte ga def ko ci ay saako ba ni mu koy jaayee yët ko Serigne Touba Cheikh Mamadul Muntaxa lépp sii di jenn moom Serigne Naar la ko Serigne bi def loo nee nag liggéey boobu noppiwaat na mu di ko waajal nag le 7 décembre incha allahu rabbi di ko yëgal nag mbooleem fa ab xarit ma a nekk wala ab taalibe comme ci man di doon Serigne Sidi nee na ginnaaw bu mu soññee boppam bi nag mi ngi lay soññi di la ne liggéey boobu képp kuy ñëw na nga andewaale jumtuwaay boo xamante ne bii mën naa tàggale am ngooñ ak gerte ca loolu mooy jëm ci wàllu radu fourchette ak ay saako sëriñ sii di nee na nag mi ngi sant ñëpp di leen gërëm di ñaan liggéey boobu képp koo xam ne def nga ci sa yitte ak sa pas-pas lépp loo xamante ne bi sëriñ Touba sédd na ko maam Cheikh Issa Diène mu jaar ci sëriñ Baara waaye jaar ci sëriñ Naar yàlla na ko bokk ak yow bi barakati Cheikhuna Ahmadul Xadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.